غادر المريد مملك صوب لدى يا مريد هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو أي ثمد وباغ سبحان سوكن في وواغ ننسان تتيف دي في التويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أنا اللي نوان في الدنيا فهكاد لنوان كنك وينا تسير له خير خلق أكسابام يا كتاخ با يالا بن مبولم جام يا teewul mu dem ñu na wa ma muhammadun illa rasul xalxalal lin mu doon دنيا سرن كرك تبو ديالي خير الورى وامك دون كجالي ويلا يبو أحمد المكي دلس يبو أحمد المكي باي سنو مام تيرن إبراهيم كلي دخادم كلي مخدوم يوين لياري خويلة كويتل فدار في خويلة دمبتل أبكي على سيدي إبراهيم ما جعل سوء إبرا وتفهيما أبكي على خليل إبراهيم ما دم جعل أسما وقديما جنتك جايما أمسر إبراهيم weerangi jooy laylan ba daa bayima ca moomaat sunu weeru kor wa jooy naana fi nun korom na toog ma joy si sa ndaama la sañca ndaaru jaal sasin cay yàlla maa waaru warootina waaru garoo gawan daawu jommetina mi ngiroy ne waawu ay nalal xaali xalilullahi way jala leen ma saana jaay lillahi ay na laa fardi xalilillahi imaam Cerno Ibrahima baabullahi ayn ala xutbul warasil jaa'i xalifatil xadimi doonallahi ayn ala xarmi rijaalillahi seyxi siyuuxi qaa'idil ilaahi way man way man mi ko ñaana ñu ànd ak jàmbaar ji nga xamante ne yitteem yëpp mooy def lu baax jëf lu baax dox ak mbokk di ko suuxat di ko dundal i tamit mooy Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba gaynde baara bi muy ñëw nag mu baax xoo ànd ak mbokki boppam yii rek mu àndal moo ngi ànd ak ay dara di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Kébémer ak rakam ju baax ji Serigne maam Cheikh Mbacké ay yes ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moom Serigne Ahmed moom Cheikh Mamadou Lamine Baara ak ki nga xamante ne mooy Serigne Jili Mbacke moom Serigne Sam Ndula ak Serigne Jili Mbacke Pofti ak Cheikh Soyibu Mbacke moom Serigne Abdoul Aziz moom Serigne Laat ak Serigne Salihu Mbacke moom Serigne Thierno Gelongal ak mboolem nag communication nag mboolem daayira bi nga xamante ne ñoo nekk Kébémer ak mbokki taalibe yëpp la Serigne Bassirou ànd ak ñëw ne. day ñëw ci ki nga xam ne day kenn ci moom muy sëriñ Abo mii boole ko ci ñi nga xamante ne da leen di wër ci biir siyaar bii nga xamante ne xam ne borom daaru ak Cheikh Mamadou Lamine Baara li nga xamante ne xaale yi ñu amoon ñoom ñaar. noo ngi am mbégte ànd ak Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Xaadim moom Cheikh Mouhamadul Amin moom Cheikhul Xadim ci bis bu tedd bi nga xam ne Mbàkke bisu weccante ay teraanga la bisu weccante ay cant la te ñaari góor yàlla yu liggéeyal sunu borom ba lakk ngërëm moom amaloon ko. muy jaamu bu yàlla bu nangoon ak njaamam di taalibi muy Abdoulaye wa xadim rasuli cheikhuna ahmadul xadim ak rakki boppam di taalibeem boo xam ne mosuñoo wuti ci dara muy përëgum da jorom muy cheikh Ibrahima Fati borom daarul Muati muy euh, bis bu am taarix ndax euh, bis la boo xamante ne ni Cheikh Mouhamadou Fadal moo ko andi ci contexte bi mu nekk tey mu def ko ci ni Chaabaan mi nga xam ne fukki fan ak juróom ci weeru euh, li nga xam ne moo jiitu koor kon muy taxawaay bu am solo sëriñ bi ñëw nag ànd ak ay bokkam ni ko El Hadj Seydou Sy grand communicateur traditionnel waxe nit nag bu àndee ki bokkam fu mu dem danañ ko fànk waaye ku bàyyi ki bokkam fu mu dem ko xoolaat mu seet si nag ku mu nawloo ñu bokk jikko bokk pas-pas waaye bokk deret boole leen sëriñ bi sëñ baa ngi ñëw ci ni ku mu nawloo ku mu bokkal pas-pas waaye koo xam ne ku lu euh, taxawaayam la euh, sëñ Abo mën naa ni 11 heures ba léegi ñu ngi wér wala sax 10 heures ndax man j'ai pris le train en marche ndax fekk naa boobu ñu jóg te lépp Mbàkke am na am na ay ndaw ñëpp xam ne digganteem ak Seydou bu ko yónnee mu doy sëkk ñëpp xam ne diggante ak loxoom dajooram bii di sëriñ Maam Cheikh bu ko mu doy waaye damay wax ni teraanga képp ku ci doyloo ñaari service d'envoi d'argent yi danga nga bari ni ay xaalis waaye doo bari gan muy Wave ak Orange Money bu fekkee lu xew nga wala nga Orange Money bu bari say sees dana vide say poos mën naa fees ndax bokk ñetti ci la ko yor loxo làmmeñ akub tànk bu ci manqué mu yëkku waaye kii nga seet si mbàkki ku mat a seet si la sëriñ euh, fal as jiy mi ko meññi sëñ mu daw bala ku jur sëñ mu daw balak faati aw balak ndëkk aw bala aw bala kumbu ñuul maam Dieng warax mbooj mu jigéen jóob xariloo takk sall buri jarnu mu ma ma am nag biir cër bu rëy ci kër gi ndax dafa yor sama rak sama sëriñ muy soxna Mominatou Mbacke moom sëriñ Mbacke Mohamed soxna loo mi nga xamante ni sa lépp ndax yéen a bokk sëñ Modou Moussa ak sëñ Baara ñoo bokk lépp Moustapha Aminata Baara Aminata Aminata loo xari maam Diop Aminata yàlla yàlla xujjukumba Siré xujjukumba Fallou xujjukumba Maam Diagne xujjukumba xujjukumba sëriñ Ndiaye Lekebe Fatma Samb Aram Dior Penda Fall Cheikh Mouhamadou lañu Cheikh Mouhamadoul Bachir kenn du la laaj ci réew mi sëriñ Abo ñu ngi lay nuyu baax ci turu suñu kilifa gi ñu àndal ñu sëriñ Bachir Mbacke moom sëriñ Khadim Hawa Ba ak délégation bi nga xam ne ñoom la ànd ak ñoom la àndal te sëñ Seydou lim ko léegi te ay mbokk boppam rek ànd ci ak ay wëllëram ak i xaritam sa yeboo ñëw sëñ Bas mi ngi lay nuyu baax a baax a baax di amaan mbégte ak kontante ñëwaat fii ni ñu ko defoon daaw ñaan yàlla ñaan nañ ko teewe at yu bare bare bare <coughs> euh, sëñ yeboo yow da nit ku baax koo xam ne euh, mënul ñàkk sëriñ bi bu duggee ci dëkk bi euh, wër say waajur wër say nijaay faw mu agsi fii ci bërëb bi saafonte ak yow ndax sa jikko ak sa taxawaay ci toolub Sëriñ Tuubaa bi kenn ku ne xam ne liggéey bu rëy bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey ci communication màggal grand màggal Tuubaa te loolu nga tey ko sa loxo ñu xam ci lu rëy rëy rëy rëy loolu bëgg Sëriñ Tuubaa ak xam sa maam euh, maam Cheikhna Ibrahima Mbakke fi mu tegoon Sëriñ Tuubaa moo tax nga jaay sa lépp jóge Daaru Musi ñëw jël lépp téye ko sa loxo te saa su ne day gën a rafet day gën a yokk ku amul dond dondoo sa maam mbëgg gëm bëggoon sëriñ Tuubaa mënoo lu mel noonu ba tax moo tax sëriñ bi ne fu mu duggee daaru bala muy dem fenn wala muy gën dëkk bi boog incha allah dana ñëw ceew di feddiluwaat kóllëre sa diggante moom ah, ndax def nga ko kilifa ànd nga ak moom sopp nga bëgg nga ko man mi nga xam ne sa xarit la guddeeg bëccëg ñu daanaka doomi ndey doomi be <laughs> doomi di jaay toojante guddeeg bëccëg saa su ne buñ dajee sëñ bas nga may njëkk laaj kon ba tax na kóllëre googu mi ngi ko feddiluwaat bu baax a baax baax di lay ñaanal li nga xam ne sa maam bàyyi na ko te muy barke bi bu la ci kenn ëppale te dafa nañ kenn du la ci ëppale ndax sa yeboo ñëpp ñëpp la amal ñëpp la amal yitte sa yeboo ñëpp la mën a jaxasool sa yeboo ñëpp la mën a euh, laamisool te loolu ak oyofam ak ku taalibi rek moo ko may kon sëñ bi neen daal mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm dina la ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla na fi yow at yu bare bari fekk la nee na yow sëñ say mbir nee na mënu cee gàttanlu te mënuma cee maye silence itamit nee na sëñ Abo yaa toll noonu nee na sëriñ Abo Mbàkke yow nit ku baax nga nit ku bëgg mbokku nga nit ku mën a sonn ci mbokku nga ko xam ne man de yàgg na suñu diggante yow léegi mu mat fanweeri at lu wolof yi naan ànd ay jikko moo koy def nee sunu suñu diggante man ak yow mu kilifaam di sëriñ Cheikh Mbakke mu sëriñ Daam Abdourahman Lo moom Cheikh Ibrahim ànd ak sëriñ Saalihu moom sëriñ Xaadim moom Cheikh Ibrahim ànd ak sëriñ Mbakke Buso mu sëriñ Cerno Buso nee na di sunu xarit di sunu mbokk di dëkkandoo ci Kébémer ñu bokk lépp nee na ngay ju baax nee na bi muy yëkkati ay kàddoom nee la kilifa gu baax gi yegsi muy Serigne Cheikh Mbacke Wilaya nee na yow nit ku yàlla baaxal nga nit ku bëgg mbokk nga nit ku bëgg lu baax nga mën a jox lool nit cër Serigne Cheikh kon nee na moo ngi lay ziar bu baax di ziar rakam jii di Serigne Salihu nee na di sunu goro yi tamit di rakk baax. ni jotaay bi demee nee na wane nañ si Abo yow nit ku baax nga yow ku am yitte nga ku mën a sonn ci nit nga nekk jëmm joo xam ne nee na bul jàpp ne li nga nekk ci yoon moo tax nit ñi di fi jaar yàlla seede ne boo sañcoon dëkk digganteem ak daaru mat dix kilomètres mu doon gannuus ñëpp daañ fa fekk sëñ Abo Mbàkke mi nee na sëñ Abo xeebaloo kenn bisam xeebaloo kenn yitteem xeebaloo kenn soxlaam moo tax yow loo ne ñun danañ ci nekk ak yow sëñ Mbàkke gis naa ko mu dem ñëwaat bu doon koo xam ne safoowu bu ñëwee fekk nga am gan day raaxaloo rek dem waaye kenn amul sañ-sañu ci li nga ko lebal ak li ko defal dugg ci dëkk bi te du ñëw ba ci yow jox la loxo ziyaar la nemmeeku la loolu sa cër moo toll noonu nga nekk koo xam ne lu dul ak taalibe ak bëgg sëriñ bi ak bëgg lu baax ak mën a def lu baax safu la ñoru la moo tax bis bi at mu jot nii laa koy defee ak yow lépp lu ma xew xewle tamit bu ma gessoo nii nga koy defee doo xaar sëñ bi woowu ma yëgalu ma yooyu ci mbokk amul solo de nit li ngeen di yëg yàlla boole leen ko mooy ak mbokk ngeen seq ko kenn waru cee xaal joxoo ma kàddu yëgaloo ma woowoo ma téléphone nee na maa ngi yow gëj nañ déggante waaye ñemewuma ñëw ci dëkk bi ñàkk ñëw ci yow xalaatuma ko kon loolu mooy ak mbokk yow it noonu koy defee journée sëñ baara bi mosuma la ceewoo foo ko déggee jóg nga ñëw te yaa fay jiitu toog ba mu jeex boo amee sa bis ñëpp noonu lañ lay defal sant ak di gërëm sunu sëriñ cheikhul xadim di ñaanal cheikh mouhamadul muntaqa mu yàgg fi lool te ba naal yi mu naalal cheikhul xadim mu àggale ko amin di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba gépp di ko ñaanal Serigne Bassirou Anta Niang ak mboolem njabootu borom daaru gépp sama xol nag dafa sedd te xol bu seddee xaj na boo waxee sax wax lu ëpp waaye tey bég naa lool te Serigne bi li ma ko fonke dafa am bis am ku tiim borom daaru di ko wax lu baax am mag mu jóg di ko femm maam Thierno ne ko bàyyi ko mu wax am naa luñ ma waxal te am naa lu ma maye moo tax Serigne Bassirou su ma koy gis fu sori nekk sama biir néeg saa yu ma xëyee dama ko seetaan te li ma gën a neex ci Serigne Bass mooy li muy wanewu mu Cheikh Mouhamadoul Amine ku xeeb sa bopp foo dem ñu xeeb la moo tax mbooloo muy dugg rek ñu yëkkati ko baaraay Mouhamadoul Amine baaraay Madul Amin Mamadul Amin baara baara ku la way am na nee na loolu ci seede yi la bokk dafa am bis sama jur wax ma ni ma waaw sa njaboot ku ma saaga woon nooy def ma ne ko mbake xanaa ma rayante ak moom mu ne ma jëru ko de bul saaga wayjuru kenn koo saaga wayjuram bu làmmiñ ñu faywul xel ma fayu na te bu la wanee ginnaaw fayu njegam ñemewu ko ku bëgg ñu fonk la da ngay fonk sa baay ma tegal ko ci ne li des ci sama àdduna képp ku la wax lu baax wax naa ko lu baax wax naa ko baayam waaye képp ku la wax lu bon ak ku la mën a jur wax naa ko lu bon wax naa ko baayam moo tax mu fokk Serigne Bassirou nit da ngay fonk la nga bokk képp ko xamuloon Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ñëpp sax xam nañu ko ndax ay jëfam ndax njabootu Serigne Touba gi ku nekk. da ngaa am particularité ba boo koo ci gis da ngay yaakaar ne moom rek sëriñ bi loolu la sëriñ Touba defal waa këram waaye Cheikh Mouhamadul Bachir jom ji ngor gi fit wi dafa am solo ndax am na loo xam ne ku amul jom amoo fit amoo ngor doo ko def damay toog sama ruq nag li may génn ci bitti bariwul waaye lépp lu sëñ Bass def maa ko gis. mbooloom jullit ñi asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Bassirou Sall nee na mi ngi leen di nuyu neena mi ngi leen di sant bu baax a baax di feddali sunu mbégte ci bis bu tedd bii di màggal gi nga xam ne mbégum sëriñ tuubaala ak maam Thierno Birahim nee na kon nag. mbégum jullit ñépp la war a doon képp koo xam ne ab jullit nga wala ngay ab taalibe bis bii sa mbégte la war a doon ñi ngi sant mbooloo mi fi ñëw ñépp di waa Njaambur ak ñi jege feneen ñépp ci biir réew mi ak ñi nekkoon ci bitim réew te ñëw ñépp tamit gis nañ leen ñi ngi leen di sant bu baax a baax ñu ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba di ñaan ci barkeb sëriñ Fallou sa Dieye képp ku fi ñëw yàlla dimbali la yàlla aar la yàlla musal la di leen xamal ne ñun nag bis bi rek la ñu am amuñu lu ko ëpp ndax ndigalal sëñ Fallou la moo gën a kawe ci ñun ndigal lu mu mën a doon ndigalal sëriñ Fallou moo ko gën a kawe ci ñun te moo nu joxoon ndigal nenu bis bii mooy seen bis bu ñëwatee lu ngeen ca man na ko def kon nag amuñu lu gën a kawe ndigalal sëñ fal loolu ñu ngi sant mbooloo mi bu baax a baax tey ñaan ci barkeb sëñ tubaa barkeb sëriñ fàllu yàlla dimbali ñépp gis nañ seen taxaay bu baax a baax xam na ne nit ñi ku leen lebal ñu fay la ñun nag lebal nan loo xam ne gëm gëmuñu ne man nan koo fay xanaa ñaan yàlla suñu borom rek mu yàlla dimbalinu ci barke bis bii lépp lu ñu sàkk nan ko bëggee yàlla defe nu ko noonu te rafet nan ci njort bu baax a baax ndax day sëriñ Fallou day li nu mujj wax ak moom mooy def ne ma yow sëriñ Bas àgg naa foo xam ne lu ma wax yàlla suñu borom mu def ko kon nag loola buñ ca tibbee rek sotti ko ci fii ñépp seeni aaj dana faju kon na seen xel dal bu baax a baax ñi ngi sant ñépp di leen gërëm di ñaan yàlla ñëpp delluwaat ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah am xol bu sedd ak mbégte bu rëy ñëw ci bis bu tedd bi di nisfu Shaaban di bis boo xamee ne dafa am wàccuwaay bu rëy ci lislaam ndax wax nañ ne mooy fiha yufraxu kullu amrin xakimin wa yubraam kon yàlla da ciy def at tajallil azam da ciy feeñal ay boppam feeñal ay mbégteem feeñal ay dogalam yàlla dogalit lu rëy am ci ñaari soppe ab sëriñ akub taalibeem bu yàlla teqale woon sëriñ bi jóge fi demoon ci géej gi doon fa liggéeyal boroomam bàyyi fi borom daaru sas ko liggéey bu rëy a rëy dem lu mat juróom-ñaari at ak lu teg gisante waaye ci bis bii la yàlla dogal ñu dajaay muy bis bu kon bu bari lu muy symboliser Cerno nag wàccuwaayam ci yoonu murit ni ko sëriñ bi waxee rek dafa mel ne bi manzilati haaruna min Muusa dafa mel ne mooy haaruna ak sayidna Muusa niñ meloon te loolu sëriñ bi junj na ko isa atatka adudi kitaabi fa karrimil kitaaba bil mataabi adudi la ko wax te loolu la yàlla waxoon sayidna Muusa sayidna haarun ci moom mu mel ne yàlla da leen a boole boole leen ci ak mbokk waaye mbokk ci pas-pas moo gën a kawe lépp euh, Thierno dafa jaay léppam jënde ko ak taalibe diggante ak sëriñam wala magam gisu fi mag sëñ bi rek la fi gis te neex ma asanat wa neex ma adut féete na sëñ bi fi nga war a féete fépp waaye noonu dong la mën a mel cerno mooy mbërum sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mooy mbërum yonte waaye cerno mooy mooy mbërum sëñ Tuubaa moo xamee ne bu wàllu yépp tege seen mbër mu teg ko du ñee kenn ndax mënoo wax fu am manqué wala fu xaqiqaam manqué fu xam-xam manqué wala fu jaamu yàlla manqué kooku nag mooy modelu murit yëpp mooy royuwaay bi fi mu féete sëriñ bi ci bëgg ko ci liggéeyal ko ci waggaral ko njaboot gi waggaral ko am njàngaleem waggaral ko aw yoonam dafa mel ne ñun taalibe yi waxtu wu ne loolu moo ñu war a interpeller ndax ay cerno lañ ci sëñ Tuubaa ndax cerno lañ ci wooteb sëñ Tuubaa bi kon yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla yokki leeram yàlla taas ñu ci barkeem sëñ Abo mii ñu ñëw fekk si it di nit ku baax ku ñëpp xam taxawaayam ci yoon wi tax na biñ fi ñëwee ba ba léegi taay bi bàyyi ngi fees del waaye ay mbokk rek lañ fi fekk ak i mag yi ak i seex ak nit ñu baax ñëpp loolu nag sa taxawaay la sa nekkiin wu rafet la ci sa jëflante yu rafet ak nit ñi kon ñi ngi lay ñaanal yow yàlla taxawu la dëgëral la ba fi nga bëgg a àgg ci liggéeyal Sëñ Tuubaa yàlla àggale la fa wa ma zalika ala llahi bi aziz ñi ngi nuyu ñëpp dafay jafe xëy na kàddu yu mel ni sëñ abo yimu fi yëkkati sëñ abo kebe sëñ son bu ci kàddu yu rafet ak xam-xam Euh, nga tegal ci jënn wax mën na koo yàq waaye nag euh, ñu def ko ngir li ñu ko suñu xarit suñu nijaay sant sëñ Abo ca samay kàddu kon di tënku rek ci ak cant di ko jaajëfal bu baax ndax sëñ Abo sama xarit la sama mag la sama nijaay la ci ak mbokk wante nit ku baax la euh, dañuy waxtaan lu bari dama naan ko léeg damay gis jamono soppeeku gi mu soppeeku ak nooni lislaam ak nooni Sëñ Tuubaa ma xaw a mel ni ku tiit waaye su ma gëstoo gis ko mel ne yow sama xel dafay dal ci góor góorlu gi ngay góor góorgóorlu ci sàmm ndono euh, jàmbar dëgg la macha allah ñu ngi koy ñaanal suñu borom sàmm ko ñu ngi koy ñaanal suñu boroom yéene ji mu am ci liggéeyal maamam li yéene bi mu am. ci liggéeyal ko Serigne Touba suñ borom def ci lu kawe njortam kon euh, loo rek lañuy ñuy tënkee kàddu yi ndax kat damay faral di wax ne ci la bokk rek du way dangay ngay jëf lu wane la ci nga bokk sëñ Abo dafa bokk ci ñi mel noonu euh, kon dañ koy ñaanal ca yéen ñii di ak njabootam nga xam ne yàlla daf leen boole ak ñoom ngeen xam ngi am am ngeen sëriñ bu mat sëriñ am ngeen sëriñ bu xam boppam am ngeen sëriñ bu doyloo sëriñ bi kon na ngeen góorlu gën a dëgëral seen i pas-pas ndax jamono toll na foo xamante ni képp ku sàggan ñu gàllankoor sa diggante ak sëñ bi dañu am fulla ak fayda ci li ñu sëriñ bi bàyyeel loolu rek mooy kàddu yi di kàddu yi sant ak gërëm di ñaan suñu borom may ñu fekke déwén ca tal ko di ñaan sëñ abo yàlla bàyyi ko fii dëgëral ko ba yéen jin am yëpp mu àggale ko ci jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah ndax bis bi mooy bis ba nga xam ni bi ko sëñ Tuubaa dénkee li mu ko dénkoon ki ko ki ñu dénkoon ak ka ko dénkoon bis bi ñu njëkk a gisee wax naa ko bii saafoonte keroog ba njëkkee joxantee loxo sëñ Tuubaa ko daf ko wax ni dafa wax Cerno Birahim ni ko ni nga ma taxawale sama gannaaw de su fekkoon ni yaa demoon man ma des fi du ma la ko mën a taxawale noonu waaye li ma la ciy fayee nag liggéey baa ngi nii teg naa ko sa loxo ko am na la gërëm ku ñàkk na la xarab loolu mooy sama bas ñun ñii ñëpp nu ñëw tey Daaru Muxti ak ñi ngeen bokkal sëñ Tuubaa ñëpp ngir fas yéene liggéeyub Sëñ Tuubaa boobu mu tegoon ci loxoom ñu am ci suñu wàll te ci bis bii la woon loolu nun ñi ñëpp loolu moo nu fi indi dëkk bi nag nu am fi ay cër yu baree bari bi ci jëkkit mooy Sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne moo nu meññ dañoo fabaat tudd nu Sëñ Mahmoudam mu Ceerno Birahim wëlbatikuwaat it yàlla def dëkk bu tedd bii bi ko Sëñ Tuubaa diggalee Ceerno Birahim mu sanc ko ba mu koy sanc da koo waxoon ne ko boo noppee danaa la sàkkalu tur tur woowee ba mu koy sàkku nijaay sëñ Abdou Lahad sëñ Amsatu Jaxate la bind daarul muxti ci këyit jox ko ko ni ko dama jët ko Cerno Ibrahim te moo ko yaroon nag di ko jàngal bi sëñ bi demee ci géej ni ko yóbbul ne boo demee ne ko ne ko tudd nii te ne ko bu fa ne jàng lu ko fu fekkut dama ko amut loolu mooy dëkk bii tey moo tax ñu njëkke ko ñu gërëm ko nag ndax sëñ lu mi waajuram dafa doon murit saadix boo xam ne bii nun ñi nga xam ne mën nañu sax waajur mën noo jur danoo defoon ne nawle ndax man mii musuma am benn bi su Sëñ Abdou Lahad mm-hmm. ñoo di ko def Touba mm-hmm. bu yemee ci Sëñ Sidi mi xalifa bi doy na mm-hmm. waaye danaa ñëw ba sama kër ànd koog man ba nga ni maa ngi ay kàddoom yoo xam ne sama biir kër la ko waxee woon te ku ko xam xam ni moom Sëñ Touba jeex ca xol ba tàkk mu bàyyi fi nag njaboot gi njaboot gi ne wax wax fa dëgg yàlla Sëñ Abo mii nag ñun ñëpp da ngeen fi gis sama yeneen nawle yu leen yu leen fi fekk léegi loolu nag ci jikko la ndax leen koy jur jur naw nan ko bàyyi nan ko xel ndax ci jikkoom ak doxinam te fii ma ko fekk jëkku tey seeti naa ko ba ca ba ca Daaru Rahman te jikkoo waral lool ak aku aku aku doxin te balaa janta so da ngeen fi gis ñu bari ci sati Sëriñ Tuubaa yi dikk ci barab bi fekk fi jikkoo ma waral lool bu ko defee nag mu ko ñëpp a ñëw bu ko defee nag ñu di ko sant moom di ko gërëm di feet li wëllër bi di ko ñaanal yàlla ci barkeb Seexul Xadim ak yéen ñu topp ci gannaawam yëpp yàlla taxawu leen te di leen xamal ne Euh, la sëñ Abdou Lahad waxoon rek fi nekk ci sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa waxi la sax da ko da ko da nettali woon rek sëñ Tuubaa dafa waxoon ne ku ma defal loo man ma defal loo munut ku ma defal loo munut ma defal loola jomb kenn ku ne nag noo sooboo ci sëriñ bi rek ci ci sa digganteek ak sëriñ bi te pas-pas lal ko noonu la sëñ Tuubaa di su su sooboo ci yow te moom mii nag mooy seen seere ci seen jëf ci sëñ Tuubaa kon nag ndokk ba ngeen ko xamee ba taxawaay ya ci moom yëpp ngeen di ko def loolu xam leen ni defal leen ko ko Sëñ Tuubaa ngeen def jërë ngeen walaay saaro ngoñ war na tuuru ma jooya jooy ba sama gët yi saaru gi na saa xolam bi wow na na cër dem na billaahi wallaahi tegal duutuma ree ba kekku duuna naama xalilullahi ibrahima war ngeen yeewu jarna garab gu ga kerolan waa daaru nee na jiri na joanga ni jaaru imaanu diinuna aqul imaani wasaa'ibul islaam wal ihsaan yarnoy kenul diine assalaamu aleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen siyaare yéen mbooloo mu fi nekk yëpp nag ndax mbégte mii ma am tey ci sama kilifa gii fi ñëw di Cheikh Mamadou Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor kàddu yoonu murit wépp di nit ku baax di nit ku dëggu di nit ku bëgg Serigne nit moom boo koy seereel na fekk nga xam ko sànq rek sëñ Cheikh Baara Mbacke laat mii nga xam ne lépp la ci moom mënoon moom lañ doon waxtaane ci moom rek laa gis nit koo xam ne xàmmeewul ki ko bëgg ak ki ko bañ moom ku gis rek Serigne Touba lay xool ci yow te la sëñ la jaraloon Serigne Touba ci yonant bi ba mu jël léppam bay tudd jëmmam ne jox na ko yonant bi sallallahu alayhi wa xam naa ne Serigne Bassirou mii Serigne Touba leer na ma ne tey bu ñu doon laaj ay bakkan ngir Serigne Touba bakkanam bii benn bakkan du ko ci jiitu teraanga ju ko mën na yàlla yàlla mën a defal teraanga ji gën a kawe ci moom mooy teraanga yi bëgg Serigne Touba te ma xam ko dama wax ne ñun ñu bokk ci comité organisation màggal tubaa yépp war nañ koo sant ndax bi nga xamee ne sëriñ Serigne Mouhamadou Lamine Baara jox na ko bàyyiwut fenn waa ko Serigne yi kër gu ne jël na mbokki Serigne Touba yëpp jël na fa taalibé Serigne Touba yëpp jël na fa kër seexi sëriñ Touba yëpp jël na fa ànd ak ñoom ci liggéey nga bëgg am ab sañ-sañ naan la loolu ko yoruma ko demal ci diw moom laa ko jox te lépp lu muy def sëriñ Touba la ci meetuñ xool ci moom da nga xam ne bi xat na waaye moom ci boppam jàngale na ci aw yoon ndax bëggul dara neen mënoon na toog di saafaxante ak wëllëre yi di saafaxante ak kilifa yi waaye lim ci jublu mooy nit ñi mën a jariñoo jëm yi ki tax ñu daje fi muy maam Thierno Borom Daaru tax mu dajale presse bi dajale bokk yi génn toogaloo ñoom ci jataay bi ngir nit ñi man cee jël kàddu yoo xam ne des na ko jëriñoo loolu it tax na ba saa yi waxtu yu jotee nuyu nu bàyyi suñu kër ñu wuy ko ndax sunu kilifa la waaye li muy defit dafay lu tege ci aw yoon lu jar jóg looloo tax te moom yitteem may na ko bu la wooyee nga wuy ko ndax boo ko wooyee mu wuy la te boo ko woowul sax mu seet si la loolu mooy ci koy sàmm nit ñi foofu la ñu toll kenn moomu leen damay wax ne bu dee adduna moom kenn topp ci kenn. ndax nit mën naa doon sa sëriñ sax jàppale kon saa yi kenn jàppewu ko kenn ak yëg ak jikko ju rafet dañuy jàppe ni te mu ngi ci yow yàlla la yàlla gën a yàggal yàlla yàlla gën a wéral sa yéene ci kër Serigne Touba yàlla na ko yàggale euh, tey jii nag danoo nekk ci bisu ku tedd bisu koo xam ne dafay delluwaay ci bépp murit rawatina bépp jullit muy maam Thierno Ibnu Fati borom daaru Muxti borom daaru modèle la mooy référence mooy delluwaay bi nga xam ne ku ko roy wala nga topp ay jéegoom topp mbóoram xañcu aw doxiinam da nga am ngërëmul Serigne Touba te ngërëmul Serigne Touba mooy ngërëmul yàlla borom daaru mooy koo xam ne dañuy wax xam na jot na waaye wax Ceerno it jot na dund na jot na jariñoo it Ceerno jot na loolu li koy firndeel mooy sëriñ bi ci boppam moo ko defoon moo mu nekk përëgum nday jorom def ko mu def ko aminu sëriñ sëriñ bee ko jàngal bàmbaa ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàngal liggéey la boole am ndam bàmbaa ko yar yor ko ci waxtu si xar te mos nga tàggoo moom li waxtu kibar sëriñ bee ko jàngal sëriñ bee ko yar sëriñ bee def ci moom it tedd ngay jikko yëpp moom borom daaru tedd ngay jikko yooyu nag ngir ñu mën ko waxtaane dañuy delluwaat tuuti tey ci ñenn ci borom yi xam-xam yi nga xam ne jamononte nañ ak maam Thierno borom daal moxti yenn borom xam-xam yu mag yi nga xam ne ku ne xam ne nañ ci réew mi ñoom ñoonu wax kan mooy Cheikh Ibrahima ci melo kan mooy Cheikh Ibrahima Fall ci jikko ci doxin lu mel noonu am na ci koo xam ne moom la ñuy wax Serigne Mamar Sey muy nimraasu njàmbur nga xam ne si ñu génn ci daara yi Serigne Mbacke moo doon Serigne ci la bokk. génn ci daara man Cerno borom daaru ci la bokk nekkoon borom xam-xam bu yaatu nekkoon boroom xam-xam bu kawe doon koo xam ne ku sëñ bi wóolu la woon moom boroom daaru sëriñ Mamar moom am na bis kenn ci mag ñi ñëw ci sëriñ bi di ko wax aw façon yéem yi ñu jàngee itam jàngaleem moom borom daaru borom daaru ni ko ah man ngaa jamoo ñoom ci wañ nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima almachar waykat bu mag boobu jamoo woon nag moom ay béy yu yéemi ci diggante maam Cerno Cheikh sëriñ Mamar Sey moom moo waxoon ne borom daaru wa cheikhu ma fi lxalqi bil almi wa tuqa nadirun lahu fa alxalayiq bil badi nee na borom daaru waroon natt ay kem ci xam-xam amu ca morom amul kum dandal ci ragal yàlla amul am kemit ci tabe loolu nee na kenn mënu ca mel ni am ceer na borom daaru maxti mu ne borom daaru alimun adibun du wafain bi dimmatin wa saada bii aqral mu kaana fi kër yi mooy koo xam ne ku am yar la borom xam-xam la ku matale la ku bari xam-xam la mooy koo xam ne ci waxtu rawam la jiitu woon ñëpp moom maam Cerno borom daaru mooy koo xam ne wa seyq xaqan wa suyuqu ayaaluhu walaw na daal neexul ba neexul waaye sëriñ si moom njabootu maam Cerno maam Cerno mooy sëriñ bi daan na ko nag yaay koo xam ne it yow borom daaru melo yii moo nekk ci yow ku ñëw sa kër nii la fay fekk muy dëkk bii di daarul muxti wa daaruka daarul ilmi wa diini wa tuqaa wa baytuka baytul majdi wal fad wa zuhdi wal fadli sa kër yow borom daaru mooy këru xam-xam borom daaru boo bëggee xam-xam-xamam xoolal ki ko jàngal mu Cheikhul Xadim waaye xoolal ñim jàngal moo jàngal Cheikh Moustapha Al Karim moo fi raw jàngal Cheikh Abdou Fadal moo fi raw moo jàngal jàngal sëñ Maxtaar Binta Lo jàngal sëñ ma bañ kon ni génne ci daara yi maam Cerno rek tegtale na kon bari xam-xamu euh, borom Daarul ci loolu it day wane kon bu ne ko sa kër mooy këru xam-xam waaye wa diin goog diine borom daaru juróom-ñetti fukki at la dund yu man manqué ñeenti weer ñaari yoon na ma sa tiim ci àdduna ba ma amee ndox fay na lim ay atam mooy lim ay satalaam ku jàppul doo dugg jàkkee Cerno yu ba fati danañ boole liggéey ak jaamu yàlla loolu la maam Thierno meloon ci dox yoo xam ne doxin yu mat la kon këru xam-xam la wattu xaa ak ragal yàlla ñaari tànk lam mooy jëfe digal bàyyi tere na bis am ci maam Thierno di wax ne ab sëriñ lu mu la digal koy def lu la tere nga ko borom daru na yàlla digal wala mu tere la kon ku dawoon bànneexu bàkkan la ku dawoon sopp sa ba sa bànneex la moom Cheikh Ibrahima Fati borom daru moo ko wa baytuka baytul majdi wal zuhdi wal fadl sa kër këru tedd nga la ak góob dëdd àdduna wax naa la ne la juróom-ñetti fukki at yu manqué ay weer la dund mu a dëkk ci tabax te ko bari woon wërsëg la benn yoon lañ ko mës a defaral ab néeg boo xam ne dañ ko dër ci ciment mu ne lañ ko dindi na xaju fi moom Cheikh Ibrahima Fati te ku ne xamoon na barkeem ku ne xamoon na maqaamam ak darajaam kon moo tax mu taggee ko ne ko yow de borom daaru sa kër këru la waaye këru ragal yàlla la waaye këru diine la waaye kër dëddu la kër la goo xam ne kër gu mat la gu sell moom Cheikh Ibrahim mu nekk koo xam ne it moom borom daaru ci melokaan yi ko yàlla jagleel ak rëyu doxina mi am lam lay jàngal mooy matuk defaru ku tedd ci Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul borom daaru teel a gàddu ay responsabilité digganteem ak Serigne Touba bokk na ci yooyu yëpp mooy bi ko Serigne bi yabal muy wujj Ndar jikko ju mat ko waral ak rafetu jikko am na ci borom xam-xam yi ku ñuy wax Muhammad ibn Suufi al-Yaqubi bi takk tagg borom Daaru Muxti ci ay melo dane alhuda wa nada wa husnu sifaat naala minha muraadahu yibra faati nee na tedd nga jub tab rafet jikko lañ cee sàkku di ko bëgg lépp maam Ceerno ko am mu ne xat alim na wa xat ra'ay na yaqiina an na ibrahim sayyidu saadaati nee na gis nañ lu ñu wóor xam nañ lu ñu wóor ne sangub nit ñi mooy maam Thierno Ibra Fati waaye mu ne Ibra Fatil imaamu xawtun shabihu li na sëriñ maam Thierno mooy njiit li mooy xawsu bi waaye mooy shabihu li aqihi moo nuru mbokkam ma muy sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lan la ko muru fi wasfi daati nuru ko ci bind nuru ko ci jikko nuru ci melo noonu la meloon mu ne yaxta fi ithrahu masaan wa subha xaailan haaka ay si des moo haati nee borom daru benn royteef la amoon muy Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa la daan roy guddi Sëriñ Tuubaa la daan roy bëccëg nee na saa yu déggee indi na am mos sa nuujarum mu sa yeexantal ci déggee ndigalu sëñ bi wala mu dégg addiyee bi mu war a joxe benn chihaar la borom daru amoon muy benn symbole boo xam ne ñëpp war nañ caa dellu xel mooy borom daru daana wax ne Sëriñ Tuubaa lu mu bëgg dana am te man Ceerno lu mu ma dana loolu borom daaru daana ko wax daana wax ne Serigne Touba lu mu bëgg dana am te man Thierno lu mu ma sant def bokk na ca li ko euh, Ibnu Soufil Yanqu bi di wax ne xamala Cheikh Ibra ximlan taqila min xisaalil xadimi xeeri diqaat nee na borom daaru yan bu diis la yanu ci jikkoy Serigne Touba ci roy ko ci jikko yu bat nee na moo tax mu nekk koo xam ne jikko yu rëy rëy la mu ne borom daaru nag mooy koo xam ne boo ko bëggee xam dëgg mu ne bahara cheikh yibra baxnda aqihi ka duhuri siraaji ba xuraafaati ab sàll boo ci taalee lam leb di yu leer muy ràññi ko nee na ginnaaw sëñ Tuubaa leere woon na fang ci àdduna ba ci bëtam te jikko borom daaru nag loolu mu wax ne noonu la mel ci feeñ mu ne daaka xukumu ilaahi xukumu ilaahi daa fi ardi wa loolu moom dogalu yàlla te yàlla lu dogal loolu mooy am moo def maam bu nii mu mel borom daaru mooy koo xam ne ci fukki atam ak juróom la tàmbali sàkketal Serigne Touba dëkk bu Serigne Touba ma sàmm noo ko sanc moo jiitu Mbàkke sanc Daaru Salaam ci deses sanc Touba ci wasas sañ ci mbakki baari ci bay sës moo sañ ci daarul manaan dëkk ko sëñ bi am ceernoo fay jiitu sañ ko borom daaru yi doy na ci nekk ko am confiance te wóolu sëñ Tuubaa tamit dëgg keroog bi tubaab bi convoqué Cheikh Amadou Bamba nga xam ne sëñ bi dafa sañc ci mbakki baari 29 mars da sëñ bi sañ ci mbakki baari def mars avril mai sambalaw ba pelle jébbalu sëñ Tuubaa muy buur ba Jolof loolu jóge na ñi nga xam ne ñooy nasaraan bañ demee ba mois de juillet ñu convoqué AOF lettre bu Serigne Touba ñëwut kenn joxul Serigne Touba bataaxal ndax dañ ko nëbbu ba mu jaar jamono jëru ko leeral waaye bataaxal boobu kat bi ko sëñ bi jotuti da ca gën a yéeme yemuñu ci dañ caa boole ak yàq Ahmadou Bamba du la wuy si wala bu ñëwee faale ba coow la bare maam Thierno la woo mu toll ci fanweeri at mu ne ko kay demal ma ca kañ ñuy wax ne mooy borom ndar. ñun sëñ tubaa rek lañ am. amuñu lu dul Serigne Touba. Serigne Touba démb Serigne Touba tey Serigne Touba boo lëggee di sant bu baax Cheikh Ibrahima Faty ndaamal daaru borom bis bi nga xam ne tey bis bii ñuy màggal muy fukki fan ak juróom ci weeru Suuban nga xam ne diir bu metti diir bu yàgg diir bu jafe diir bu tar ci maam Thierno biraahim Daamal Daal damay faral di wax ne man ngaa wax Serigne Touba ak ku ne di tàmbalee lee huit cent cinquante trois bi mu ñëwee ba mille huit cent quatre vingt quinze bi muy dem ci géej gi man ngaa wax Serigne Touba ak ku ne bi mu jógee ci géej gi mille neuf cent deux ba mille sept mu ñibbis Touba ba suñu bisu tey bii waaye diggante mille huit cent quatre vingt quinze bi mu demee Gabon ba mille neuf cent deux mu ñibbisi boo nee maam Thierno booy lim sa fukki baaraam bu jeex li ñu doon xam kon kenn du maam Thierno Birahim wax nañ ne keroog lañ njëkk a gis rongoon yu maam Thierno bi mu gisanteeg Serigne Touba ci Ndar ndax sëriñ bi ñëw na lu yàgg Serigne Touba. ñëw na lu yàgg nja ndar doo ko wax Cheikh Issa Diène ne ko na ñëw wóor ko maam Thierno keroog ñëpp wax nañ ne ni ko sëriñ bi gisee ñoom ñaar xoolante nañ lu yàgg doo ko saafoonte borom daaru nee na keroog bi Sëriñ tubaa téye ci ñaar loxoom taf ko ci dënnam ci lay rongoñam tóor bis boobu nag la Sëriñ fàll moom Sëriñ Tuubaa joxe ndigal Sëriñ mu daw balla ne ko nañ koy màggal maam Cerno Biraay mooy màggalu tey gii waaye nag ku nekk ak li la ñor ñun dafa am ku ñu ñor mooy Sëriñ Fàllu Asta Dieng est-ce que est-ce ngont mii ñuy def moom lañ koy defal tey dajee 8 mars soxna Faat Isa Jéey mi jur maam Thierno Ibrahim borom daaru bari nay njaboot bari nay doom bari na ay sët waaye sëñ Fallou Asta Jéey la ko yàlla rafaatale moo tax tey ma jël 8 mars ja jël ngootum sëñ Fallou Asta Jéey mii jagleel ko soxna Faat Isa Jóob jàmbaar lool jigéen dina war roy ci moom duma ma ci sori ñaari yëf rek laa ciy wax yoo xam ne doy na sëkk ci jigéen ju ne war roy soxna Fatou Issa soxna na ne keroog bi mu àndee ku tedd ko soxna Jaara Buso xam nga nag ku nekk ki la gënal ku nekk man ngaa tudd jigéen sàngam moo ma gënal waaye man jigéen ñi soxna jaaraa ma ci gënal xanaa am naa ci sañ-sañ soxna Fatou Issa nee na keroog bi soxna jaara jële boppam teg ko ci ay luppam di tàggoog moom ne ko man de mënatumaa dem fii laa mën a yam xam naa damay wujj sama borom waaye sama dem gii de lenn rek ma ci metti kenn rek laa ci yërëm mooy Ahmadu sama doom ci wallaay gis soxna Jaara bi mu waxee loolu ba noppi ci la génn àddina soxna Faati Isa am ñu fa romboon di sàmm mu wax leen ne leen da ngeen di ñëw toog xaar ma fii ci soxna si ma dem ca dëkk ba wax ko suñ morom sali wala ma toog fii xaar leen ngeen leen wax ñooñu ne ko kon toogal dem wax ko sëñ Mor Anta xam nga boobu sama jaaru wéet na de waaye kan moo mas a gis ci àdduna mbooloo mu toll ne mbooloo gi dem Porokhane amul fenn te boobee ñoo fay bàyyi moom rek lañ fa bàyyi soxna Fatou Seye topp loola rek la ko soxna si waxoon jël boppam bépp jox Serigne Touba deseetul dara nag Serigne Touba Serigne Moustapha Saliou borom xam-xam bu rafet bi def ne. dafa nettali ne keroog bi nga xamee ne sëriñ bi am na lu ko dal ñun sam sëñ ñu koo tudd ndax ñun jàppuñu ne sëñ bi koy tawat la ñun suñ tolluwaay sëriñ bi foofu la waaye waxit la rek di ñaanal Cheikh Mamadou Bachir mii borom daaru yàlla bàyyi ko fi ba mu àggale ay naanam yëpp dafa koy faral di wax nekk na borom daaru nekk na imaam sëñ Basirum sëriñ Touba bind na huit cent pass ci Serigne tubaa sëñ Basiru Anta Ñaŋ mi bind na ci maam Thierno Birahim ab téere yàlla jagleel ko tey jii mooy maam Thierno li ëpp ci am njabootam ñëpp daaray alxuraan lañ yor di jàngale ñu néew nga ci gis ñuy nekk def ñuy nekk ci lu ñu war a nekk ñu néew boo nee benn doone ñaar kon ñoo koy ñaanal di ñaanal sëriñ Xaadim sëñ mu daw walla waaye nag am ay cant yoo xam ne maa ngi koy beral suñ suñ sama mbokk yi di journaliste yi lii ay pexe mayewu ko xaalis it mayewu ko koy joxe lii tànt boo demoon fekk ko fa buñ la waxee la borom fay dangay ngay tiit waaye lii ñàkkuma ci dërëm te am na ñoo xam ne sax dañoo amul yéene def ko direct ndax seen kilifa loolu la leen waxoon waaye xaj na loola la ci yàlla dogal te jàpp naa ne semaine bii di ñëw tele boo taal dañ fa seen Abou Mbacké bu la naqaree ndax xam naa moom nga seet noo def walla nga wala nga fay seet télé. di sant journaliste bu baax di sant nag sëñ Bass Abdou ndax sama diggante ak journaliste yi ci moom la jóge démb yónnee na fi. teraanga joo xam ne mën naa defal màggal bi ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara léegi sëñ Moustapha Alaaji Baara jóge di ku baax te woyof moo toog fii ñaanal yu joo ko tàmbali jataay ba mu ko joxee kàddu gu yoonu murit jox ko organisation màggal ga ba mu tànnee Cheikh Abdoulaye jox ko communication ci lañ ma tànn dénk ma lépp du jëm ci wàllu presse boobaa léegi toog na ci fukki at ak ñett liñ naan ku sant nit doo sant yàlla te loolu ci moom la jaare waaye yàlla dimbale ma ma ànd ma àgg ak journaliste yi foo xam ne nii laa demee ñoom léegi lu ma nekk sax ñoo ma gën a nekk di sant seen kilifa yi ndaxte bu ñu amoon yéene yi parce que di bëgg nañ ma ñoom ñëpp fi la ñuy nekk ki démb rek dimanche ñoom ñu bari fi la ñuy yàndu ci man ndax ay couleur la seen patron yi oh. kii di Racine la bu RTS ki démb ana samsu daf ko jox ndigal ne ko nanga dem ci sëñ abo jël conférence bi te indil ñu ko ñu teg ko muy RTS euh, sama xarit Mamadou Ibra Kane équipe bi démb ba léegi ñu ngi fi bougé wuñ moom sama xarit la démb rek la may woo ne ma moom dinaa ñëw fii ci cérémonie bi waaye mu am ay tànk-tànk man maa ne ko jéggal naa la waaye daf ne moom day ñëw sama xarit Seex Ñas waa Walfadjri ñu fi dem ba léegi jox leen ndigal ñu ñëw jël si ko ñoom bu ñuy teg ñaar yoon la ñuy teg dañuy teg alxames teg àjjuma moo tax ma ne semaine bii di ñëw moom ku Abo Mbàkke soof ci télé yi nan nga am ko Abo Mbàkke di sant sëñ mbàkk yu fay mu wax naa ko léegi gars yi ñëw nañu fi di sant waa DTV yi Mansour démb la ma woo woo Adama ñu ngi fi démb ba léegi jógewuñ fi te yu yombul sëriñ bi nekk Dakaractu sëy Diagne wax na Moustapha Mbaye ne ko sëñ wax leen ko lu mu bëgg nañ ko ko defal gor gor na day gore nit mënut a jël alalam jëpp jox la ko te doo ko sant site internet yaa ngi nii site internet yi fi ne su ma duggoon ci di leen lim mën naa ma juum te boo fàttee kenn boobaa day xaw a doy waar waaye jëpp ni bàyyiwuma kenn ak Bougane Gueye Dany bu seen TV wax na Ablaye jaañ ak am Diop ne leen nañ ñëw jël si ko ñëw nañ jël si ko teg ko di sant Cheikh Mamadou Moustapha moom sëñ Abdoul Ahad démb ci guddi ñëw na fi njaboot sëñ Tuubaa yi su may lim damay jum sëñ Abdoul Ahad ambassadeur démb ñëw na fi sëñ Mamadu yee daa sëñ tàkk mu sëñ Fallou fi la fi la nekkoon démb sëñ Cheikh Bara Laat moom bu mu wax ci moom moom ba ma tàmbalee màggal ba léegi sëñ Sidi Moxtaar di fi nekk màggal bu ne dañ daan def nagu ma njëkk am rek sëñ Sidi Moxtaar laa ko yóbbu toggaañ yóbbu ba bis mu ne ma lii de war a yàpp ki def fi ndax waaye ñaan boogee sëñ Cheikh Bara mi ma ko moo tax moom ma toog ba léegi suñu Cheikh Baara nit ku baax la te woyof lool mm-hmm. te gore lool Cheikh Baara Cheikh Abdoulaye koy sant di ko gërëm tey di sant sama waa kër maam yi sëñ Abdou Karim Touré la nga daan def ca defal ko sëñ bi yegg si na ne su ñëw su sëñ Abdoulaye sëñ Baara ñëwee na la ko wax sëñ Moustapha mu ne sëñ sëñ Moustapha am sii Sidi Maxtaar daf koo yóbbante wax ko ne la ma daan defal sëñ di Maxtaar defal naa ko tey àgg na yóbbante rek àgsi na nag maa ngi ci sant yàlla bu baax xanaa sama bakkan bi dabañ koo fekk waaye fii maa ngi dund duma ko dagg li ma bàyyam defal a tax wallaay mbàkk sëriñ Muntaxa sëriñ Muntaxa yabal na fi doomam sëñ maam moor bii gi mu yabal fi bëkk néegam sëñ maam loolu doy na sëkk sëñ Murtala moom sëñ Moustapha sëñ Alaaji Baara nga ne toog ànd ak soxna May moom Alaaji Baara Cheikh Bamba ñoom léegi lañ fi jógee koo xam ne Touba daal ñëpp rek sëñ Bamba dañu sëñ Ablaat jël na fi ay kàddu yoo xam ne sama yaram da doon daw sëñ Basiru sëñ xaalim awa ba di Cheikh Ablaat Gaynde Fatma fi la leer mënumaa lim ñëpp waaye ku sant Mbàkke rek ñëw na fi ndax man sëñ Tuubaa rek laa bëgg. bëgg ma leen dugg sëñ Tuubaa. wallaay moom rek laa dund. waaye nag di sant sama jabootu bopp gii nga xam ne ñoo bokk ci kër gi di ko tàmbalee ci kii toog sëñ Basiiru Sàll mel man damay toog di ko xool ba yàgg ba ne ndekki addiyee mën naa toll nii. dëgg la démb dafa jënd ñeenti nag bu dee téeméeri junni jënd fanweeri xar ak ñeent. joxe million ak genn wàll ñu dugge ko ñu indi ko ci kër gi te suba bu ñuy xëy buñ jëndiwul ndawal duñ am luñ lekk fas yéene wuñ li ñuy indil borom daaru mukti fii ñu koy def suñuy poos li ñuy ñaan yàlla bu màggal di jàllee ñu amee ay bor juróom benn nag yu mag démb ak léegi ak fan ak xar yu bari yooyu defar nañ ko def ko ci màggal gi te fas yéene moom suñ poos yi moom dara fanaan si ñu koy fanaanoo ndax ki teral booy wut ci moom rek sa ngor day des sëñ Bass ñoo ngay sant bu baax te di la ñaanal yàlla di sant sëñ Mafal Fall jóge na ko ci bëccëg dama koy wax xam nga ñun dañoo tàmbalee defar jumaa fii ci Daaru Rahman mi ngi toll ci juróom benn weer ña nga ca sooraale ku fa romb gis te moom jàmbaar la ci lool te du ko wax. dafa am koo xam ne man xaw ma ko sëñ Bas ku ñuy wax Ablaye Diagne ak ku ñuy wax euh, Ablaye Dia xat suñ seex mii de man xaw ma ko benn yoon laa ko mos a gis waaye dafa nekk modèle jumaa Daaru Salaam jee boo fa demee jumaa bi ñuy mel amul wax nañ ma ne sax weer wu ne dana ci def cinquante millions kenn mosu koo dégg ci rajo. baab télévision mu cay wax noonu lañuy ñuy liggéeyal sa sëriñ dama koy faral di wax dama naan taalibe yi nañ wattu di waat seen moroomi taalibe yi xaalis ab sëriñ mooy laaj ab taalibe xaalis jox la nga liggéey te am na ñoo xam ne kenn du leen yalwaanal te borom daaru muti ca la bokk soxlawu ko am na ñamoot bu mat lépp ndegam sëtam bii di sëñ Fallou Seye nekk fii ci Darou Rahman mooy tabax jumaa joo xam ne ay millions lañ cay def boo demee ñàkk ca soorooree te sëñ Bas sama xalifa moo ne nañ ko taxawal tuuti ndax gaawaay bi ndax nit ñi mën cee def seen loxo lañ fa denc fi mu ne nii buñ ko defoon defe naa karam la ñuy def waaye ñu taxaw noonu noonu la ñuy liggéeyale jumaa te ñàkk ca def ñëpp ñoom sëñ Bas Sall mi ñoom sëñ Cheikh Lo sëñ Lokal ñoom sëñ Modou Fall mu ne <coughs> ca doon taalibe bu mag moom tamit di ku baax barki démb dafa ñëw ne sëriñ Bassirou Anta jumaa jumaay daaru ji lamp yi ñu yóbbu ko mu rett ko dem Dubaay jënd conteneur lamp indi ko que sëñ Fallou sa jee jënd nañuy lampi jumaa ji te jumaa ji àggagul fii nga xam ne ñun dañuy xaar rek jumaa ji àgg ñu leeral. cay li ci def ëpp nañ ñeent fukki million dëgg la day mbàkk barki démb li mu joon dañ ko jox sa yëpp sama maa ngi ko denc ci biir jumaa ci te jigi tabax jumaa di sant it bu baax njabootu sëñ Fallou gépp rawatina sama xalifa sëñ Basiir dama koy wax ne ko soo ma wax tëddal damay tëdd ngay jaar sama kaw di jàll te du ma ne um. te di la siyaar ci sa bisu maam bi te di la ndokkeel ci jëf ju rëy ji ci taxawaay bu rafet bi te di la sant tam di nuyu tamit suñu mbokk yi ñu fi fekk ak sëñ Abdou Karim Touré sëñ Baara ak kilifa yi ñu fi fekk yépp di leen ndokkeel ñoom itam ci bokk gi nu bokk bis bii fii nag dinañ am cawarte trop pour jël fi kàddu ndaxte ñun ak taalibe daf ñoo ñor mbirum sëñ Tuubaa itam daf ñoo ñor te moom mii ak taalibe lañ xam ci moom waxuñu sax euh, bokk ay jamono waxuñu bokk fréquentation waxuñu maase waxuñu dëkk waaye man li ma ko yooyu yëpp am na waaye li ma ko gën a nawee mooy ak taalibe ndax am na ñoo xam ne seenu taalibe ay milliers am na béréb yoo xam ne boo leen fa fekkee du ñu doon i taalibe waaye am na béréb yoo xam ne soo leen fa fekkee nag ñu doon i taalibe moom nag xàmmeewul fii mu koy doone ak fu waxtu woo ko gisee moom lay doon loolu lépp nag day tegtale ni xam nga bu fekkee woo maam Thierno Birahim mais am na ñu ñoo xam ne ñu soq koo ci moom ñoo xam ne seeni jikko ci ngay xamee ni ñii kat maam Thierno nii la mel ndax moom mi ñu defal bis bi tey moom dong mën nañoo wax ne moom la sëñ tubaab bind ni ni ko murid saadix bind ci wax ko ni ko murid saadix ñëpp dañ naan maa ko wax nañ ma ko nangam waaye moom mbindum sëñ moo xam ne leetar la boo xam ne dafa wax daf koo wax daf koo tudde murid saadix eh. beneen bi ko ko fi bàyyi di dem bàyyiwu ko mu ëpp li fi bàyyiwu ko mu man fi waaye mën na fee ëppale ngor ëppale fi jëm bàyyee na ko fi ëppale fi ngor ëppale fi jëm ndax bi mu koy bàyyi ak Serigne fànn di ko bàyyi ak Serigne Modou Moustapha di ko bàyyi ak Cheikh Mouhamadou Lamine mu dem ba àgg ci ñoom ñii fi sëñ bàyyi koo xam ne nar nga fee bàyyi koo man naa dem wala soxna si dem mbaa sama njaboot bi te koo fi gis boo jëlee sa doom jox ko itam bu du sibburoo doomi boppam sibburu bu dee faj ordre bu ñu ne ñaari ordonnance doomi boppam sax lay jëkk a jëndal ordonnance kon maam Thierno dafa jëloon léppam jox ko sëñ Touba te dese lu ko woon dara itam oh. ci ngor ci jom ci fit hmm. ba noppi boo ko dee xool économiquement ah ba fii may wax yow nii Sénégal demagul ndax daaru musti gi boo ko xoolee tey da nga tàllal fii ñu ne koso nga ni fii yaari xaar nga ni fii la daaru mar na waaw noonu nga koy tuddee maanaam nga xam ne ñëw ni teg fii cadre yi say say say say jàmbaar say général ñu seq la koo xam ne ak woon nga ci tubaab bi ci boppam bu amul lu mu doon soldat si bu ñëwee fii ñu bojj ci sàq yii au lieu muy leb daa ñëwoon di leb si maam Thierno di ko may koo xam ne tey jii sa buntu kër nga daan toog Cheikh Sidi Mourtada moom wax ne ma ci buntu kër la daan añee kare ci buntu kër ci la daan añee kare doxandeem bu ñëw sukk dox dox ñëw sukk tey jii ñu baree bari seenum raxasu képp nanguwuñ ko wateeg ba di waxuman di bokk ak ñoom di bokk ak yow di ànd ak kon maam Thierno ci biir modèle waxuma sax modèle la nii ci nit ñi waaye da ba pare bu maam Thierno li mu am loolu kenn mënu koo fabriquer kenn mënu koo falaa liggéey ñàq sëñ Sidi Moxtaar daf maa mos a ba ma ñëw mu ne ma def nangam ak mooy saw sas ma def ko ba àggal mu daal di may wax ne ma xam nga lu tax ma lay def loolu yi mën ko déglu mu ne ma diw ñëw na fi bëgg koo def ma ne ko doo déedéet diw ñëw na fi bëgg koo def ma ne ko déedéet yow nag li tax ma def loolu ko bëgg gi nga ma bëgg ak jàpp gi nga ma jàpp ak yaakaar gi ma yaakaar ak ak toppatoo may toppatoo te sëñ Tuubaa lu ci waaye am da koo jënd ma bëgg nga jënd balaa ma fiy jóge comme maay sëñ Tuubaa tey ni ma ma jël caabi yi la ma ko doon defal la ko doon defal mun ma tàllal sa loxo ma ñaanal kon sëñ Tuubaa moom amul lu ñuy am amul loo xam ne ay ay faralaate la wala lii seen sëñ moom mii lii mu am da koo jënd ci sëñ Tuuba te moom xam na moom xam sa sama jikko moom xam na ne moom waxuma moom waaye ñi ñu supérieur yu sax mënuñoo am ma leen di waxal loo xam ne defuñu ko ndax bu ñu yàlla dañ fiy jóge te yàlla mu moo waxee loo xam ne lii du dëgg sunu borom laa koy diggaale ëllëg yow mi ma ko doon waxal doon wutul la neex da nga fiy jóge boo léegi خسب قد خسب يا ريت الفارق وجاء